alhamdu lillahi azim allazi la ilaha illa huwa alxayi alxayum lahul mulku wa lahul hamd wa ala ñu ngi siyaare adduna bi yëpp ñu ngi jox loxo adduna bi yëpp umma islam bi yëpp di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullah bés bi nga xam ne tay moom la ñu tuddee DCT waajal mbudaay muy diwaanu Chakor Tour nga xam ne bés la boo xam ne dañ ciy waajal bés bu màgg boobu di 13 janvier incha allah fambudaay kilifa gu màgg gi di Maulana Cheikh Souleymane Niane woote ko woo adduna bi yëpp ngir waxtaan ak ñoom ci diina waxtaan ak ñoom ci baatin waxtaan ak ñoom li ci ñoom waxtaan ak ñoom li wër ndax xam-xam moom fil afaqi la wa fi anfusihim li ngay xol la ak li ci sa bop moy li waw ak li toy moy lan lañuy wax lu bari te xamuñ ko nan lañuy def ba xam ko nan lañuy def ba jeriño suñu bop nan lañuy def ba jeriño saaxir waye nuñuy def waye nuñuy def ba jeriño batin ndax sahir seen jëm yi la képp ko xamantene ni amna jëm rek soxna la jeriño saaxir Mawlana Cheikh Souleymane Niane dana yar adduna bi ci xel waaye dana duy xol yi ci leer ba mu fees dell ñu ngi koy ànd ñaari chaîne yu mag yi télé yu mag yi nga xam ne tey mooy Leeri TV mu Mubin TV ñëw tey ci Thiaroye sur Mer ñu ànd ko di ko liggéeyal Cheikh Moussa ci daraja Mawlana Cheikh Souleymane Niane liggéey bi nga xam ne la bo xam convoi lay nek aduna bi ànd ko di tuddu la ilaha illa allahu Dikoyek, yek diko sikar ngir bëgg té dara ay trisi amu ci biko ko sanga ñaan yegge xam ne bi defuñu ko ngir Cheikh salim moy cyand de dañ ko def ngir sang ñaan bu teewaatee dakaar ñu xam ne borom Mboudaay mooy borom Dakaru te mooy borom adduna bi yëpp nii nu ko defee nii nu ko defee incha allahu rabbi sang ñaan bu ci teewee mooy doon waajal Mboudaay bi nga xamante ne si nii lii xew ca Mboudaay ba prévente yi ci bés bi lay lan koy xel di jaayee incha allahu xam yàlla jaaxal na adduna gis yàlla jaaxal na adduna jeex ci yàlla jeexal na adduna yàlla rek a fi nekk jaaxal na adduna ku xam sa xam sa borom jaaxal na adduna koo xam ne dafay wax ne jeex na tàkk ci leeru yàlla moo xam kàddu Cheikh Ahmad bàmba Cheikhul Khadim la radiyallahu anhu mba cheikh ahmad tidiani radiyallahu anhu mba imamulahi radiyallahu anhu góor yàlla yi nga xamante ne nii góor yàlla yi nga xam ne ñoo jaar ci Sénégal yépp lanu yoroon di ci yar seen ndaw di ci di ci di ci mag di leen ci yëkkati moom la musa si se indi ci àdduna teg ko ci loxo sang ñaan mu wootee mu daay 13 janvier bés bii bés bii tey dana wéy ci bés boo xam ne bi ko sang ñaan yéegee dafa ne bés bi amatut fu mu am ndax du woote sëñ saaliw bu xeebu bii waaye moom lan koy jëmmalal moom sang bu tedd bi Maulana Cheikh Souleymane Niane ngir adduna bi xam ne woote na ci dëkk bu ñuy wax mu daay séeréer le 13 janvier 77 538 85 93 mooy numéro sang bu tedd boobu nga xam ne convoi bii mbooleemi cheikh mbooleem ku mu defar fu mu mën a nekk ci àdduna danañ ko daj danañ ko xam danañ ko fekk incha allah muy fekkee bés bi ngir Sangañaan ndax jëmmi Sangañaan dina ko fekkee incha allahu rabbi mudaay bi Dakar lay xel di ak cheikh am ñu wane sang ñaan kan la ñu doog a dugg daay incha allahu rabbi kon nag loolu moo doonoon kaddu bi loolu mooy DCT diwaanu Chakor Tour ay jëmm yu bëgg yàlla di tudd yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullah Cheikh Liba sànni si ay kaddu wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslim ñuy siyaat bu baax baax a baax ah di wax ne tey ba su bu wér ba su sant bu baax te jaam bi gore rek moo war a sant boromam te jaam bi gore mooy kan ndax yàlla sàkk na ay fi yu waaye nag nit te yàlla tànn ne nit daal moo gën a kawe maxaama si lépp lu mbind waa léegi damay laajte nit lan la def ba mu gën a kawe maxaama lépp li yàlla bind nit bu dee am na mala yoo xam ne ñoo la ëpp doole fuuf nit bu dee am na mala yoo xam ne ñoo la ëpp intelligence loolu moom science andi na ko bu wér waaye nit bu dee gudd fan am na mala yoo xam ne ñoo la ko ëpp bu baax baax a baax a baax nit bu dee mën a nelaw mala yoo ko ëpp nit bu dee ma a jur mala yoo la ko kon nit la liggéey si yàlla ba yàlla sàkk ne lépp lu bind rek si xaalam bi nit moo si ëpp ma xaama kon nit wa naa lijjanti boppam bu baax a baax baax a baax a baax nit war naa xam xàkkatal mooy kan si yàlla képp ko xam loolu nag wallahi lazi laa ilaha illa allaahu di nga wëy di nga wëy di nga wëy yàlla sant yàlla sa borom maa xam may sant boobu nag moo tax ñu jëmmal taxawaay bii di première édition fii si di wax ne tàmbali la waaye na bi yëgal nañu ne bés bii de sikk amul ne dina bokk bés yii wala bés bi ëpp ma xaama sampal bés di sante yàlla bu wér kon nag bésu jàmm la jaam dañoo war a lijjanti seen boroom bu baax a baax a baax a baax nit du jëmm waaye maxaama nit am na tànk loxo nopp bët bakkan baat ak bët ak gémmiñ te wallaahi maxaama nit a nekkul si moom nit dafa am cëru leer si moom am lu war a xam si moom am lu war a yëg si moom am lu war a jàpp si moom am lu war a dox te lu nekk rek xam-xam bu wér moo ko si dimbali bu baax a baax a baax leer gi ñu yor si jamono xam-xam la boo xam ne jaam ñu koy dégg waaye daa war a leer bu baax a baax muy xam-xamu marifatu billah xam-xamu saayir am na si yàlla waaye xam-xamu baatin am na xam-xamu saayir ne mooy lépp loo xam ne mooy yëwénal dund ni si saayir moo xam xam-xamu mécanique la wala technologique xam-xam bu manti doon boo xam ne day tax su dund saayir yëwén baax na lool waaye xam-xam nag bu yëwénal su dund si yàlla moo bu solo kon nag marche sant yàlla la ba su gërëm yàlla la bésu megdelas yàlla la bésu leeral tawhid la bésu yegg kalimatu laa ilaha illallah la dañuy dox nag di cant waaye nag bu ñu yeggee am na ay thèmes yu bëri yoo xam ne fas nañu koo laal ndax arifina billahi si jamono yi dama ne dañ maanaam teg ay tolluwaay ndax jamono yu jaam yi boo nee aarif rek dañuy jàppee ay nit ñoo xam ne bokkuñu si ñii ñi dañ jàppee aarif ñoo xam ne dañoo yëg ñi jàppale ñu dof ñi jàppale ñoo xam ne bokkatuñ si jamono kon aarif na la war a def bëgg naa bi mu xamee yàlla ba yëg boroomam nan lay def ba wàccuwaar si kaw suuf am njëriñ si addinam am njëriñ si dëkkam sociologiquement économiquement financièrement si dundin noo war a def ba sa xam yàlla ba sa tawhid ba sa yegg si yàlla mën a jëriñ sa société tolluwaay boobu nag lañ bëgg a yaatal bu baax a baax a baax baax kon nag tey bésu mbégteel ñu ngi siyaar di ndokkeel yàlla di gërëm bépp télé bépp chaîne médiatique boo xam ne teew na pour ñu ngi dangoo ñëpp jël kaddu nag di ko wax Cheikh Famara amaana mu bàkkeelu si kaddu gi mbokk ñu ngi leen di siyaar baax di leen màggal di leen jox seen wàccuwaay kulikum ku yàlla atte rek nga teew ci bis bu màgg bii nga xam ni moo nekk caravane bi nga xam ni ñu ngi koy def ah, fii si Thiaroye sur doon bis boo xam ne bis bu màgg la bis bu tedd la ngir leer gi nga xam ni Cheikh Moussa Cissé ñam borom daaru moom la jox Cheikh Souleymane ñaan mi sang ñaan mu ñëw wàcce ko ci bërëb bii wàcce ko ci gox bii jaare ko ci ki nga xam ni moom mooy Cheikh Saliou Diouf ak kulikum rijaarulaahi boo xam ni yaa ngi ci gox bii muy laa ilaha illallah bi nga xam ni yàlla dafa wax ni faxalam andawoo laa ilaha illallah wastafiroo bi zanbika wal muminuuna wal muminaat xamal baatu laa ilaha illallah ñu jégal sa bàkkaar ak yu njëkk ak yu mujj kon leer googu nga xam ni yàlla attan na ñu indi ko fii ci Caaroy sur Mer di ko tudd ci gox yi ngir ñëpp li nga xam ni moom la njëkk muy yàlla jaam ñëpp yëg ko xam ko jariñ ci àdduna ak àllaaxira di leen yëgal bis bi nga xam ni mooy le 13 janvier ñu war a dem siyaare sang bu tedd bi ñu ñu maam Cheikh Souleymane Niane ngir li nga xam ne moom la ñu defal amuñu fayam lu dul lan delloo ko njukkal ak lii ñu yëg ñëpp yëg ko ngir mën a doon njariñ àdduna ak àllaaxira di sant di gërëm bépp xam ni teew nga ci bis bi di sant ñëpp nag di leen gërëm bu wér a wér ci taxawaay bi te xam ne Cheikh Moussa lii rek la bëggoon buntu gur gu ne buntu kër gu ne leer gii di laa ilaha illallah ñëpp yëg ko ñëpp dund ko ci laa ilaha illallah auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala seydina wa mawlana muhammadin seydil awalina wal ahirin wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mbokki julit yi ñoo ngi leen di nuyu aleykum wa taala wa barakatuhu ah, di leen wax ne tey ñu ci diwaanu Caaroy Géej a ah, boo leen gisee mbooloo mi nag yaatu na lool oto yu bëri na ñu ngi tudd baatu laa ilaha illallah di wër dëkk bi ah lii nag muy loo xam ne coobarey Cheikh Moussa Cissé Ndiamé borom daaru la ndax moo ne woon su ma sañoon diwaan bu ne dinañ fa taxaw samp fa baatu laa ilaha illallah waaye coobarey Cheikh Moussa Cissé Ndiamé borom daaru boobu mu ngi matee ci liggéeyu sang Cheikh Souleymane ñaan ndax Cheikh Souleymane Niane moo ñëw fii ci diwaanu Caaroy Géej andi fi baatu laa ilaha illallah jaarale ko ci sunu waajur wa tedd Seex Amaat Diouf a bam ko tarbiya tarxiya ko tasfiya ko ci laa ilaha illallah agale ko ci yàlla mu xam ne xam-xam bu gën a kawe xam-xam bi amul xam-xam bu gën a dëggu xam-xam bi amul ci la suñu waajur woowu jël ñun ñëpp yóbbu ci sang ñaan man mi maay taawam Seex Saaliw Diouf Seex El Hadji Diouf ak mboolem njaboot gi yëpp la jël yóbbu leen ci sang ñaan ba mu def ci ñoom mbootub laa ilaha illallah sëñ Saliou Diouf nag tey am ani si initiative bu rafet boo xam ne ci di ci mbirum waajal mbudaay ci initiative bu waajal mbudaay ak yéene gi mu yéene maanaam won adduna yëpp ne xew-xew bu rëy am na xew-xew bu màgg am na te sangam bu màgg ba Cheikh Souleymane Niang di ko woote ci mbudaay le le vingt le treize janvier deux mille vingt quatre incha allah mu am xalaatu ne nag moom Cheikh Saliou Diouf ne na woo mbooloo mi. woo presse bi def sensibilisation wër caaroy géej ñëpp ànd ak moom ñu yëkkati baatu laa ilaha illallah ngir yëgal leen xew-xew bi kon nag yoon wax ne lii lépp ci mbaaxu sëriñ bi la ak ci kaweeg sëriñ bi ñu ngi ñaan yàlla suñu borom yàlla si yàlla yóbboog jàmm te yëngu bi yan yàlla doon yëngu bu barkeel te yàlla def ci tawfeex bu baax ci doole laa ilaha illallah daraje Cheikh Moussa Barke Sang Ñaan wasalaamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu Cheikh Saliou Diouf liggéey bi rafet na kawe na rafet na kawe na lii rek la ko Cheikh Moussa bëggee woon waaye nii rek la ko sang ñaan bëggee nii la ko yàlla bëggee nii la ko yonent bi bëggee nii la ko Serigne Touba bëggee te Serigne Touba moo ne avant dawaa ma zikri wa huwa akbaru min kulli ma kaana murid yuksurul li gën ci ab la muy biral fu mu munti nekk mooy baatu laa ilaha illallah لم تتكن موي قد قلت سالكا بلا اسراري ولا ابالي بزور انكاري من سيرن توبا ما غوي واخ دفالو ماكو ما تي ويدي كون نك مير ماغي ني نغي وور دي يكتي لا اله الا الله دي وقتان تي باتو لا اله الا الله كون لب رافتنا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته Thank you.